promotion bouillon ñëw di jeunes at mu nek bu ñuy dugg ci école yi wala daara yi 5% pour bo ca gis juroom kese ñoy jang jang mo xam ne métier la lolu bu yagge ci réew mi xalé yi duñu am am xey parce que amuñu métier lolu moy défi bi gëna bu suñu réew nit ñi am xalé yi am nekk ci position suba mën liggéey mën continuer li seen ay ndey ak seen ay bay doon def ci jom lolu président fexé na ba romb na tay 15% pour ko 5 té néna mom objectif bi mu am promotion bu nek buy ñew bëgg na lu mu ñetti ñaar ya général mais au moins formation professionnelle loolu mooy liggéeyu ministre Dame Diop président département bu ne te ko département Guédiawaye dina fa centre na milliard millions de francs CFA pour jeunes yi mën lycée Limamou buñ ko taxawalé ñu tabax benen lycée genre lycée technique centre de formation professionnelle bo xamné ay métier lay jox xale yi pour ñu am am xey suba loolu ku bëgg sa réew moo koy def ku bëgg sa peuple moo koy def ku am prospective sens de la prospective moo koy def transition benen nga ngi ñëw Serigne Mboup dina ci wax suñu réew day changer catégorie ndax dafa am ci économie loo xam ne lépp a ko soxla pour liggéey muy courant boo amul courant ah defe naa ne boo demoon napp it sa jën boo ko mënta conserver wu day yàqu courant dafa am rôle structurant ci biir mbir mi loolu nag tant que yaa ngi koy jéegaani bitim réew pétrole pour defar sa courant tant que yaa ngi koy def ci pétrole loolu moom ala kulli alin sa économie dina am difficulté parce que bu pétrole bi yokkoo ci biti sa sa courant yokk bu pétrole bi wàññeekoo alhamdulilah wante lu ñu àdduna yépp soxla prix ba day day yokk d'habitude président ñëw booba waxaguñu pétrole mu ne renouvelable suba di ngeen ko gis ngelaw li sax président daf koo def courant léegi mooy éolienne ngelaw li ngelaw suba di ngeen ko gis ba Ndiaye mu def fa centrale di defar courant boo xam ne ci ngelaw li lay jóge naaj wi toolu courant yaa ngi ne fu nekk ci réew mi président am na lu mu def ci renouvelable mais yàlla mi nga xam ne moom moom lépp seeñal fi pétrole ak gaz président di ci liggéey parce que loolu am na lu mu ci xam defe naa cadre réew mi sëriñ Mbuub d'accord na ci loolu président defe nañ ne mooy mën ëpp xam-xam ci secteur boobu